désert judiciaire la dara ci avocat nekku fa journal bi ne leneen lu ñu joxoon ci rapport booba te ñaawlu ko ca mooy corporatisme d'exclusion maanaam ñi siis ci seen liggéey di sepp ñenn ñi muy notaire yi avocat yi huissier de justice yi ngir justice bu tëddee njaaxanaay waaye itam sàmmonteeg ak ak yelle fi doomu yaadama enquête ne njiitu mi yëgle ne ni daanu taxawal autorité de la justice cour constitutionnelle itam Bassirou Diomaye Faye nee na danañu ñu yàgg sàkku te mu ne dana am la détention waaye lu soxal magistrature Sud Quotidien ne président huit mai la ca wax maanaam nee na waaw waaye am na fu mu ko sës ndax njiitu réew mi Basiru Jomaay Fay nee na loola dafay bàyyee cëggal gu yéeg magistrat yi ñu ëpp ci ñi sekkoon waxtaan woowu lu ñu wax rek loola la wax leneen lu ñu wax te déggoo ca te amul njeexital ci wàllu koppar Sud Quotidien ne njiitu réew joxe na dogalub ñu tàmbali doxal Le Quotidien bu ma jambal jaanit loola la wax ne Basiru Jomaay Fay la mu Abou Abbas waaye Walf Quotidien ne lu jëm ci wàllu conseil supérieur de la magistrature nii wii nii noonu la ca jomaay wax ci les échos jomaay ne li ma wax mooy ngoyuma ci toog conseil supérieur de la magistrature waaye new ma pale booba mooy li président Bassirou Jomaay Fay wax ñeel toogam ci bopp réew mi xam naa li ma indi ci bopp Sénégal du ay pexe waaye it duma def yenn pexe ngir des fi ñu des ci xew moom ak laas gis na it ci conseil supérieur de la magistrature président jomaay nii wii nii la ca point actu ne président jomaay fay maintient le suspense maanaam waxul lu leer ba tey ci conseil supérieur de la magistrature journal ba ni jomaay nag nee dégg na magistrat yi waaye nee ma nga koy bàyyee ña sekkoon waxtaan yi ñu ëpp ca ñoom lu ñu wax rek loola lay def jomaay teg ca ni toog ca conseil supérieur de la magistrature génn fa la yemale ca jomaay naan conseil supérieur de la magistrature de obsession ci man maanaam terewuma nelaw vox populi it yeggee ñu kàddu nu jàpp ne mooy li gën maanaam mu génn ak mu toog rek loola lay def waaye amul lenn lu mu teg gëtam la mu teg ca seen loxo ñoom ña sekkoon waxtaan wa ba jébbal ko rapport ya démb vox populi ñu koy xamal tuddee ko ne fanweeri recommandation assise de la justice yooyee jibal jëme ci njiitu réew mi Le Soleil la mu leen tontu moom Bassirou Diomaye Faye mooy lépp loo xam ne waxtaan ngeen ci ba juboo rek muy jëmale kanam justice te amul benn njeexital ci wàllu koppar ndax réew mi fi mu toll dafa doy waar mën ngeen koo tàmbalee doxal waral gu gaaw gaaw sax ñeel conclusion rapport assise de la justice booba loola waral réew mi quotidien justice bu doon daa xotteeku am na fanweeri ñaw-ñaw 30 points de suture la ko yéenekaay bi tuddee joxoñ noona fanweeri recommandation yi tukkee ci waxtaan yi ñu sekkoon ci wàllu yoon loola ñu waxtaane yépp ba déggoo ko njiitu réew mi ca booba lépp yéenekaay ma nga naan danañu ko doxal amul lenn lu ñuy bàyyi ginnaaw mbaa ñu cay déngi déngi lu dul ne loola sax la ma njiitu réew mi wax muy dëggal ne njiitu réew lépp lu amul njeexital ci wàllu koppar mën nañu koo doxal fi saasi muy li tukkee ci assise de la justice yooye assise yooye it nee bokk na ca la mu mooy ñu xool njiitu réew mi ministre de la justice am naka la ñuy def ba ñu génn ci conseil supérieur de la magistrature yoor yoor bi ne gouvernement Sonko bi booba jamono ma ngay génnee Sénégal ci bépp contrat boo xam ne jaarut yoon journal bi fàttali ni noonu la ko Ousmane Sonko janvier atum la amoon bés bi le jour ne ci atum 2024 dëggal nañu ko ndax contrat usine dessalement bi Macky Sall xaatimoon te mu tolloon ci ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñeent annulé nañu ko docteur Cheikh Tidiane Dièye mi ko xamle ma nga naan amul benn njeexitalit bu muy am ci wàllu koppar maanaam Sénégal du ca jëlee benn loraange loola it la wax ci Vox Populi ne mënta am benn incidence financière ndax conseil d'administration bu SONES ba sax Birahim Marème ministre du tourisme ba woon ak ministre de la justice ba woon Bilal Diatta booba jamono ca direct news ma nga yëkkati ay tuuma yu garaaw a garaaw tekke seen kaw nee na ñetti yoon bëggoon na noo faat Ousmane Sonko moom a mu ne bu njëkk ba keroog ba Ousmane Sonkoy jógee Casamance la ñu dindi écroupana ya ngir oto ba def accident bu méttee métti journal ba ne looloo mujjee am ndax booba lépp oto def nay tono kenn ci ñi àndoon ak Ousmane Sonko bi Macky Sall ki ñooñam bëggoon faat Ousmane Sonko ko Bilal yemul bés bu ñu ko audité du baax ca moom moom danañu ko teg loxo ndax fondation booba mu yoroon di servir le Sénégal mësu caa servir réew mi la mu ca doon def kay mooy séddoo réew mi ndax fondation séddoo Sénégal la mu joon doon Ismaïla Madior Fall mi waxoon ci mbiram Fulbert yu bari yeggee ko bokk na ci libération mi ñuy yëgal ne Ismaïla Madior Fall dellu si na ci lépp lu mu waxoon ndax nee na lapsus la maanaam dafa juum rek ba ko may mun a nduur fay laajee ndax mbiram Fulbert Sambou ak Didier Badji dafa bokk ci li loi d'amnistie bi passé nee na bokk ca la mu ca wax yépp njuumte la laas ne Ismaïla kay fi ni xamatul fu muy teg tànkam ndax coow li ko topp ci mbiram Fulbert Sambou Didier Badji enquête ne li mu ci mujjee wax sax doon jéem a jubbanti daanaka fayul coow li te Les Échos Abdou li coow li mooy téeméeri fan yu doy waar yi fi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am Ousmane Sonko def mu ne téeméeri fan yooya téeméeri faay maanaam ndëng ndëng ki lajji képp lañu ca nemmeeku Abdou Mbow ca Les Échos ne téeméeri fan yu njëkk yi askan wi dund ak Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement am gis nañ ne ñii xamuñu fu ñu jëm te sax dañoo teel a jàdd yoon tatoon ma di làmbatu képp Abdou Mbow ne moom lañu nekkee ci bopp réew mi bopp réew di sommet de l'état Abdou Mbow nee na dafa am gouvernement parallèle ca primature Abdou Mbow ne wujjee diggante njiitu réew mi njiitu gouvernement bi l'info ne Abdou Mbow kay deseelul dara Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye lu mu leen yàqul da koo fàtte ci téeméeri fan yi ñu fi def Ismaïla Madior Fall nag journal booba gis ne li mu def mooy wàcc bomb ba nuppi di làkku ci ginnaaw lapsus yéene kaay li mu fi wax ci mbiram Didier Badji ak ñaaw ay kàddu yu ambassadeuru Amérique ci Sénégal Michael Raynor yu mu yëkkati ca Vox Populi journal booba yeggee ñu it di fanweeri néewi migrant clandestin yu teer ca Mauritanie yéenekaay bi ne gaal ga ñu ne woon téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari nit a ca nekkoon bés bi le jour waxtu woowa la yóbbu ca Mauritanie wax ci élection présidentielle ba fa amoon yëgal ñu ne Biram daa abet d'accordul benn yoon ci fal gi ñu falaat Gazouani te nee Songas journal bi ne njiital LONASE gu bees gi lépp luy contrat de prestation gum fa fekk résilier na ko jamono jooja Walf Quotidien ne ministère de la santé pal yu bees ya fa am nuru paluk xaritoo mu ngi yëngal syndicaliste yaa mer ba futtu ca yooyele pal jàpp ne ministre bu bees bi ni mu ko defee teguwut ci yoon ay nitam ak xaritam la jël di fal libération ne du ministère de la santé rek ndax ministère de l'enseignement supérieur it loola la nu weeru février atum 2024 direction centrale des marchés publics di DCMP dafa lànkoon loola waaye ab certification wu gouvernement ba woon moo ñëw wañ loxoom ba loola jàll yéenekaay bi ne boobaleb marché bu ñu jox benn entrepreneur muy marché gré à ñetti at te nu mën koo yeesal mi ngi soxal maintenance su building boo xam ne ay weer a ngi ni kenn mënu ko jëfandikoo waxtu woowa l'informateur naan mi baykat yaa ngay woote wallu ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ndax neenu jiwu yee ñu leen jox mënuñu koo jëfandikoo benn am na ca jiwu ya baaxut ñaar jiwu yeen leen joxit doyut Diomaye Faye nu mu gën a gaawee ca laas docteur Cheikh naan li njiitu mi Bassirou Diomaye Faye war a def ci nu mu gën gaawee mooy tas assemblée nationale bii fi ne source a waxtu woowa la ñuy wax li waral jiital groupe parlementaire yi daje woon yéenekaay bi ne lañ doon xool mooy ndax coppite ñu war a indi ci règlement intérieur bu assemblée nationale dañu koy yemale ci premier ministre képp wala règlement ba yépp la xoolaat raxas ko dindi ca lépp lu ca chômage dëgg lay doon yoor yoor bi ni gannaaw burkina faso pulub sénégal booba malawi ak burundi ñoo ca ne sunu làmb moom waxtu woowa ma nga nekk ci janoo bu njëkk ñeel combat royal bi war a dox diggante Modou Lo yéenekaay bi ne face to face booba tey jii lay am ci place du souvenir foofa la taxaw ñun ñaanal leen kenn dal jàmm dig dajee ëllëg incha allah AGT News